kon jot na ñuy ñuy ñuy napp suñu doom yi ci ci ci doylu ñun ñi ci tool itam nekk ci tamit ñu gëm dañoo war a ànd ak doylu falaay jaar daal di nuyu enfant di Kër Massar borom dikkati naa démb daali tey daali démb borom daali loolu da koy waxee dëgg ko rek ay ay biram la borom daali démb daali Masaya mm. ay ca ndey coraa ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax naas ba jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. delloo bu baax a baax di mm-hmm. rafetlu plateau bi mm-hmm. di kontaan ci yéen waa Petit waaye nag la di jaajëfal sama waa Kër Masaar bi nga xamante ni ñoo ma dooleel. Mhm. di nuyu sama yaay ak sama papa di nuyu sama mag bi nga xamante ni mooy ngóone ndax nee nañ sàkket da cee daru. moo ma dooleel ba heure bi mhm. di la jaajëfal yow mi nga xamante ni tarkaala. Mhm. képp kiy tuut tànk teg nga ko loxo. dëgg la. kon yow tuut tànk nga ni yow nga yaakaar ne. ma màggaguma sax yow yow yow loo xam ci affaire culé. la napp de moom la napp de xale bu ndaw ba. yow barki démb jamono ji moom ñu ngi ci célibataire gi. d'accord mais ñun sama li ñoo ko xam. <laughs> Ah. ñooy digal jéeg ji man man célibataire jaaxal ma de. yàlla baax na mais Alaf Ndiaye daa am lu mu wax. dañuy <laughs> eh. eh, sëy neexul sëyaat a neex. te comme ñoom dañoo ñam nañ sëy ñam mm. sëyaat. Mm. xam nga looloo tax na boo ci duggee da nga naan ko kirtim. ñu ko nar a wiis. tubaarikàlla bañ cee génn. macha allah mi ngi noonu mi ngi noonu. ayca non man dama jéppi munaas. ayca bu doylu. li mu ay ngi noonu na cuuraay mm-hmm. jigéen su doyloo yan comportement lay yor. Mhm. waaw menace Balde wax nga lu am solo. Mhm. ndax jamono juñ tool nee naa la boo xasee ba dugg ci biir néegu sëy. Mhm. dafa laaj doylu ndax boo doyluwul rek li nga bëgg ci biir néegu sëy bi doo ko am. parce que tey mënoo nekk ak sa jëkkër dooleem. amul noonu euh, doole ci biir liggéeyam. Mhm. nga bëgg a jël sa bët visé ko foo xamante ni nii tarkal la dooleem àttandu ko. Mhm. da ngay sonn sonn sa borom kër. Mhm. te chaque heure da ngay nekk ak moom ci coow ci bruit te nag bakken nag jàmm la bëgg sa boroom kër boo ko mayul jàmm mayoo ko salaam di ko yan loo xamante ni àttandu ko. dafay dem te bu demee bul xam fu mu jëm. mën na santeeg daraago maa ne ñu kiir kidnappé ko. may ko jàmm te bu boobaa da nga koy wër. day fekk nag kaa bi jeex na. Mhm. kon jëkkër da koy may jàmm te jigéen dafa war a doylu ci lépp nag. dafa war a doylu ci dépense am doylu ci sëyam. Mhm. doylu ci lu mu mënti doon. Mhm. ndax nee naa la kii takk jëlee la sa kër ndey sa kër baay. may la lim am da ngay xam lim am nga ànd ak ci loolu. mais bu nekkee da ngaa teg sa bët foo xamante ni sa borom kër eggu fa. da ngay sonn. surtout léegi suñu suñu génération bi nga xamante ni nii menace day teg sa fa. ñoo dañuy teg sa ndey cuuraay jaay sphère bi wala mu jël sër bi nga ne lii de balaa guddi dinaa ko am. waaw nekkee sa borom kër joxu ko. da ngay soog tayal bu metti nag dañoo tayal. merci def dara. xalaatuñ ko. Mhm. góor daal bu nekkee jox ma jox ma bu yàggee day daw. Mhm. il faut tamit ñu yemale suñuy bëgg-bëgg. Mhm. day doylu. góor rek moo sonn. mais est-ce que menace du góor yi itam des fois yéen si góor yi ñooy sonal seen bopp sonal seen ay soxna. parce que sa ndoxaan ba la da ngay ñëw woote loo xamante ni amoo ko di gën loo ku jigéen ki loo xamante ni amul surtout nag dañuy jigee su ma la takkee naa la defal lii dinaa la tijjil boutique dinaa la may lii alors yow ko jigéen nga dem ba ci biir xëy na gisoo lool des fois loolu tamit day indi problème si loolu dëgg que gars yi léegi ay trompeur lañ da ngay gis ku luy oto sax ñëw yor caabi otoom taxaw di la góor ñi bu la takkee ci sàkket ngay dëkk góor boo nekkee moom da nga koy gëstu xam ban genre la bu la takkee doo sonn mais bu nekkee dalay wan ni lii laa am bu la takkee amul loolu bu yàggee sëy boobu du dem mm-hmm. jigéen day ubbi bëtam di xool fi muy dugg su nekkee ki nga nekkal doy na la am amam doy na la duggal ci moom mm-hmm. mais bu nekkee ki nga nekkal munu laa yor lan koy def ci moom mm-hmm. après loolu mooy indi ñàkk a doylu mais ki yor mooy lan mënulaa yor moo ngi mel ni ku mel ni yow nga kosu baraaya oh. jàkkaaroog jigéen yor si caay oto oh, mu jàpp ne yor nga lu dul <laughs> jeex bu duggee ci yow tey ji te fekk fa loolu sëy boobu du dem su loolu nga ko gëmloo woon au parce que loolu nga ko gëmloo woon il faut être naturel parce que dafay ne moom xam lan lay jigéen xam loolu lañ bëgg góor xam góor gi lan lay wax am diine am lislaam góor gi dafa oh, loolu bariwul mais xam nga góor yi lan wax dañuy naan kii su ma deful lii du ma bëgg hmm. kii da ngay gëm sa bopp non damay wax rek jigéen bi moom xam na déjà moom bëgg na jigéen bi mhm. xamul nu muy def mhm. bu wanee boppam dëkk dëgg ni amul oto ni oto bi da kaa loué. ni euh, cravate bi dañ ko ko abal. mais bu def bu deful loolu mais jigéen bi du ko bëgg parce que jigéen bi dafa bëgg comme ni nga ko waxee ni ku ko yor maanaam ku yor waaye yow boo yorul bëgg jigéen gi mu wóor ni kii da nga kaa bëgg te amuloo beneen choix du xel waaye ni ku nekk ak fi sa xel toll. mbëggeel du alal ça dépend li nga wan rek ci leen lay jàpp. non danga ne mënu laa yor nga wax. non ça dépend mënu laa yor du cadre bañ laa mën a yor. mais nit ki li nga yor. yor yem ci ak seex sa jabar nga wax balaa nga kaa takk. la problème parce que ndaw si li nga wan rek la mën a euh, bëgg ku yorul dara. loolu moo gën a moo gën a bari sax ah. maanaam bëgg ku yorul dara. mais maanaam. non waxuma loolu d'accord di aw ko ne loolu am na mais bariwul. bariwul ñi ci ah, bari. pagaay pourtant bari na sax bariwul. non non xam nga problème bi sax bariwul. merci hmm. beaucoup non dama ne. ci réew mi réew mi laa wax réew mi. jigéen ñi ci ëpp. Hmm. jigéen ñi ci ëpp ñu sooy ku yoru ñi ci ëpp laa wax. ku yorul li awa kon ku yorul. yow aw non ñi ci ëpp laa wax loolu moo fi xew. fi réew mu toll nii. ma la yow mii laa wax nii. Hmm. menuisier ba ca koñ ba. yow menuisier bi koñ ba. Mm. di di di takkale am jom lool. Mm. wóor na mu ne bu ñëwee di bëgg bëgg laa takk doo ko nangu. bëgg ba mu neex munaas bëgg ba mu neex ñu la bi nekkul la Kër ma la dëkk. affaire bi nekkul foofu bu ko may dara. affaire bi nekkul foofu xam nga affaire <laughs> cadre de cadre de mbëggeel. Mm-hmm. Euh, man dama fi ma gisee cadre de mbëggeel mbëggeel to demeewul noonu sëb la la ko bënn nga ca biir yenn saa yi nga gis koo xamante ne carte yi dafa xar tànk yi xar na comme carte Sénégal. ñëpp naan ko jabar ji jong ma loolu mel ni indo ñu naan ko sa soxna si waaye kii lu mu ko toppee. dëgg la dëgg naa waaye kii lan la ko euh, toppee xoolal ki muy sëyal amul dara. Hmm. xoolal munaas ni mu mel xoolal munaas na mu jong ma yéen gis ngeen jëkkëru munaas. Hmm. du loolu dafa am lu tax ñaar façon day tax nga toog hmm. ci. xale bu góor bi jongeem ak yërmandeem ak comportement am ak mën nga téye jigéen te fekk yorul dara amul dara takkul dara du salarié ni zéro tax na nga toog ci sëy bi deuxième bi mooy sa yaay nga nàmp sa weenu yaay mun la ay eh, sama doom boo wéetee na nga gore boo wéttalikoo na nga gore nga am problème daal di riir dem ci sa yaay ni ko damay tas wala damay fay mun la boo bëggee ma gudd fan sëyal ba dee ee eh, di nga sëy ba dee ci borom ñetti dërëm yooyu àdduna sëb bi li lu ko bënn dafa nekk ci biir néegu sëy yi mm-hmm. bu ñu gis nit ki rek ni diw mi mënu ko yor de jàpp jabaram ni dof la kër goo romb karawee rafet jeg ba ca kër ga xaw naa dee waaye bu màggee di nga xam ne dafut jinne jàpp ko doom ji màgg ji yor balu fetal ku mu dóor mu doon kanu loolu la bëggoon mais am na yaay yoo am na yaay yoo xam ne di laal ci démb ñun suñu génération bi may ma il faut ñuy laal ci démb di ànd ci tey dëgg la xam nga la ma la année 85 bi jëm ci suuf nii xam nga fekke wuñ jamono Abdou Diouf lu bari mm-hmm. xamuñu ko mm-hmm. mais xam nañu suñu yaay lu ñu daj suñu kër papa yi bu kenn jéggaani sa yaay mooy sa référence mm-hmm. man boog am personne artiste comédienne la j'ai 13 ans de carrière mais man defuma fi kenn ay référence sama yaay laa def référence parce que sëyal na sam papa ma gis ko ñu takkal ko set wujju muy jël sama yaay di jël ay jabar di ko takkal sam papa macha allah kon kooku dangaa war a xool sa yaay amatul ci réew mi mais am nga yaay yoo xam ni danoo doy waar dëng ba mel ni garab yoo mais yow yaa xool comportement bi nga war a nekkeek ak sa jëkkër waaw léegi yow si yaay yu doy yooyu euh, mm-hmm. ndey mm-hmm. des fois nit mooy ñëw di doxaan sa doom bëgg koo euh, soxna mm-hmm. mais li nga koy njëkk laaj moom mooy ban liggéey lay la am lu muy def fu mu dëkk mbaa am na appartement mbaa am na lii mbaa nanga mbaa mën na laa am na yenn si yaay yi ñoom ñooy jàngal xëy na seen doom seen doom ñàkk doylu est-ce que loolu tamit du indi problème est-ce que ñoom ñooy tooñ seen ay doom ndax des nga dugg ci kër di doxaan sax bëgg soxna yaa jaalee njëkk a foo bokk looy liggéey. natt loo am yaa ji bon su ko defee xale bi day bëgg sëyeeg waaj ci li mu am. mais yaa ji moo dul nangu. Mm-hmm. moo tax doylu lépp la ëmb menace. Mm-hmm. des fois mbëggeel moo nekk loo xamante ni loo ci wax na nga ko xam. dëgg la ndax waa ji di nga ko fekk mi maçon sax ñu koy fay journée 2000. Mm-hmm. nga ànd ci ak moom. des fois nga nekk nit mu yor 4-4 teg la ca kanam di dawal ak yow lu neex. kooku da ko bëgg ak moom ci lu mu am. mbëggeel du cadre am ak ñàkk. dañ koy toog lépp ci doylu. ndax des fois nit am lu dul jeex. du la defal daal mais gis nga àdduna du chaque jour lay neex de des ki nga ne di nga nekk ku am mhm. mais suba mu xëy ñàkk bu bëggoo ko est-ce que di nga toog ko parce que ni di nga nekk mais du chaque jour des fois da ngeen di lekk ba suuf mais des muñ ko loolu am moo lay wan si dans la vie de ah. mhm. am problème amour moom tant que mbëggee nit ki rek muñ dafay am mhm. mais léegi nag say am ci léegi jamono ji du cadre amour cadre alal la intérêt intérêt fi am da ngay am ma ànd ak yow nga ñàkk ma xool sa moroom bañ naka léegi way yaa ngi ni boto dem boto costé danga may bàyyi léegi du ma des ci loxo loxo yu ma nekkoon baaxul ay la léegi tant que yooyu nga am ci réew mi yow sa xel du ma sa nekk ci toog nga sëy ba seey mhm. comme suñu ñoom yaay li ñu doon def sëy ñaata at mosuñoo dégg sax demal mais ñun léegi ni génération bi dañuy ànd ak yow mu neex mu naqari ñu wan la ginnaaw mais am na góor ñoo xam ñu ngi am lu dul jeex mais seeni jabar boo leen gisee yërëm leen dëgg la amul ci xol lay ne du doo ko tricher am na ñoo xam dañuy ànd ak yow ngir taar soo commencé màgget ñu wàcc la takk sa moroom teg ko ci kër gi. dëgg boo amee benn doom wala ñaar mu ngi noonu sama jabar dafa bàyyeeku nga takk xale bu ndaw wàcc ko ci kër gi mu koy traumatisé te yaa ko teg coono boobu sëf ko sëf ko coono mm. àdduna yi ba pare nga ne moo tax booy génn ak ah, jëkkëru jàmbur xoolal aawa man ku ma ñeewu sa aawa duma génn ak yow dëgg la waay kaay leen takk waay ku bëgg takk yóbbu waay mu toggal sa ndey ku takk yóbbu waay cool góor yi ànduma ak <laughs> am sa soxna kenn mës sa ànd ak ñoom am benn doom ñaari doom nga ne mm. daa bàyyeeku te liggéey ko bi yëpp moo ko def nga sëf ko coono àdduna bu dul jeex mu am 18 ans mais boo ko ci da ngay foog ne 30 ans la am. ndax hmm. coono àdduna est-ce que loolu tam des fois yéen tamit du yéenay indi seen bopp ay gàllankoor. waaw euh, nañ delluwaat ci un peu ci règle bi quoi comme on le dit règle boo gis am na exception. Hmm. c'est-à-dire euh, du ñëpp. Euh, nga mën a maanaam dugal ci bem saako bi. Hmm. comme ni ko soxna si waxee léegi léegi. cest à le vrai problème qui se pose mi ngi nekk chez les parents maanaam yaay yi ñoom ñoo en général sëylootul seen doom yi. parce que dafay am lu ñuy faral di wax ne maanaam jabar certes kenn du la yërëm di la may jabar jabar dañ lay yaakaar may la ko. dëgg la si lu wér sax. bu la yërëmee bul yaakaar am jabar doo ko am. dëgg la loolu moo tax nag en général. comme li Aliou sa wax gars yi ils sont obligés que ñu dee doon trafiquant de personalité ah jéem a ñot di loo xam ne sax au moins pour sax maanaam leurrer les parents mais xale bu jigéen bi xam na ni ki muy bëgg euh, euh, mm. suukar lu suukar kafe sax amu ko mais bon mbëggeel comme wala di cest di dire mbëggeel xoolul melo xoolul euh, alal xoolul dara mm. cest à li parent yi waroon def moom mooy lii su wax léegi-léegi mooy sëyloo seen doom mm. mooy que su amee nga toog bu ñàkkee nga toog c'est-à-dire sëyal pour say maanaam njëriñu doom je pense que loolu moom mooy li gën a am importance donc doylu boobu ñuy wax noonu euh, mi ngi war a démarrer ci parents yi mais bu parents yi doyluwul mooy jigéen ji doom jigéen say loolu doy voilà deuxième duggaat ci astuce yi parce que bu ñu doyloo ba pare nag dañoo war a rogalaat nag xol yi dafa war di sedd mm-hmm. tubaarikàlla ndax boo doyloo sa jëkkër bu amee 1000 francs jox la temps mën na jënd mu xam sa de sachet bi téeméer lay jar nga suukar ko daal di jënd sa sa 150 sa 150 gars yi nañu sëy mm-hmm. barki Seydina Mouhamed xale yi nañu sëy mm-hmm. sëy méttiwul naa la nopp nga nopp ma ma bëgg la nga bëgg sa jëkkër tey ji yor dara yor 1000 francs a su ma amul dibi rek sama guddi du neex su ma amul dibi papa allo jëndal ma dibi su amul dibi sama guddi du neex mm-hmm. wala moomul fiiri sama dibi du neex mm-hmm. tey ji boo ma andi lu pizza sama dibi du neex papa na am 1000 francs jox la ko nga sombil ko wala nga mu xam ko 2 heures du matin biir bi tàng jër jox ko mu naan loolu am xol yi daal di sedd nga ne ko la portée grande verte tubaarikal la commencé jur góor nag wàcc ko ci dox gi ci yuur gi di ko raay naan ko loo dundoon ci journée bi comment va mon chocolat. mu la oh my god. looloo neex di jàllale nuu yooyu xam nga. dama bëgg mbëkk taab man taabu laa bëgg di jàllale yooyu. waaw na ci daay lii lii. comme xeeti baax yi nii day ñeex ci sëy. lii laa bëgg a xam la bu yutal souvent da ngaa ñàkk amoo munoo def genre yi. Mhm. téeméer sax da defaral sa jëkkër ba mu neex. dëgg la ci yow. Mhm. mais ñu bëri dañuy jël seen bët su ma amulee nangam lii du ma ko mën a am cadre bi du loolu mm, mm. des fois nga jël sa benn sër boo xamante ni ba ngay sëy si lan la ko joxoon mm-hmm. teg say ñaari fer jàkkaarloog sa borom kër mm-hmm. di ko wax wax ju neex même bu am surtout dafa am solo wax ju neex mais am na ñoo xam Irak Irak gi lañ dëkk ak seen borom mm, kër su wàccee teg tànk balaa foo nekkoon commencé rayante boobaa jongee mënul fiiraange daa yàq sëy yu bari mm-hmm. ñu jàpp ne day defar fekk day yàq ndax waa ji nga nekkal boo koy wan fiiraange bu yàgg bu yàggee xolam day ñig ci yow mais jàmm nag munaas nañu waxante dëgg jëkkër ñëw nga ràcc dara dara bu weex diggal say ñaari fer teg sa toq goye nit ba xeeñ ñeex lu mu dëgër dëgër cooy seddaay bi di ñëw kooku day par la force xolam day gif ci yow mais bu ñee fekk nga aju jël sa darab mu pënd néeg bi tasaaroo bagage tas <laughs> pourquoi mu lay xool. day dem ñu doxal su amee fulla day génn dem ci dara. na génn ngir nappe ko góor ñi kenn mënu leen rey. raay la ko lu neex. bakkan jàmm la bëgg. ñu lay tax ah, tax xale léegi boo leen doxantee ah. émission bi mooy ku fi xullee ba pett sa jëkkër ku fi ba pett sa jëkkër ba pare xale yi attention bofaar lañ lay takkal waaw commencé nag yaay dégg ñun ay duñu nasaraan yow tubaab nga yaay dégg ay xamul lii yaay dañ lay takk say bofaar di la jox ngay lekk di la boole kook ay wax ju neex looloo neex mais imagine des fois jigéen bul di fajal sa bopp mm-hmm. man dama bëgg sa jëkkër bu la tooñee ci milieu mm-hmm. bu ko fajee ci milieu baay ba guddi jot nga teg sa chaise defal ma ko loo xamante ni tarkal boo ëllëgee lim la bëggoon def dootu la ko defati. danga koy monot. Mhm. jël sa caravage. Mhm. wax li nga bëgg ci moom lépp. di ko ko faraj par nànk boobu amour naturel moo fay dekk nee naa lu mu metti metti kaat mi ngi de. te day sedd nga mënoot ko teg ko ci seize. naan ko di wax di ko ko faraj. waaw doo ko dugal si frigo rek ah buuruj. na fekk mu fanaanoo dépense da koy fanaanoo sax. loo ko laaj da koy jox. ah waaye bu sa jabar bu sa jabar mën na laa wutal dépense. looloo am ci mbëggeel bi la rek. nga pas wutal dépense cest à euh, dama bëgg aussi ngeen di bàyyi xel circonstances yi. Mhm. parce que sa jëkkër aussi da nga ko war a jàng ba xam ci ban humeur la dikkee. dëgg la parce que man bu fekkee maanaam man ñëw naa sama kanam gi lëndëm mm-hmm. wóor na ma ni man fanaanoo ma dépense nga ñëw di ma tegal yi mënat yow boo matu yow laay mënate non ça dépend ci li ngay wax noonu parce que <laughs> nit ki mënul nekk ci jafe-jafe nekk ci problème nga koy mënat ah, man xaw mënat mënat pour prisonnier la <laughs> eh, kaaw mën a dale mais moom maa yooyu prisonnier nga Aliou bàyyi ma mën a ko rek bu ko kaaw mën a dale dama lay wan ne mën a di ban yow sa jabar day aye Mm-hmm. ma ne sëy bi ba deux jours la ba deux jours la yenn saa yi da ngay woo sa jëkkër ni ko mm. bébé moom na wul la naam nga ni ko tey ji maa aye dëgg soo ñëwee tëdd rek ñu mënoo tele mënoo nekk góor moom yenn saa ko góor ki day ay ñu pour prisonnier la nañuy bàyyi suñu suñu jëkkër yi xam nga tey ji sa jëkkër mu nekk ci mer nekk ci problème nga naan da ngay génn ay fere ay cuuraay da ngay xam sa jëkkër ci lan la ne yow euh, sa jëkkër bu wàccee nan nga koy accueillir mer na wala merul journée nan tey la ko euh, liggéey loolu dafa am solo dafa am solo mhm. mais bu ñëw sa jëkkër wala bàyyi bàyyi muy lekk nga naan ko gaz bi jeex na facture bi ñëw naa déggal loolu di yàq day yàq jox ko mu lekk sang ko ba mu set tëgal ko ci lal bi muy dormir nànk su yewoo nag loo koy wax nga wax ko ko mais tey sa jëkkër mënul nekk ci mer. Mm. nga génn ay fer ay mais amul amatu fa. loolu fitna la indi. du sax mais tey bu nekkee da ngay sëy ak sa borom kër ci lu neex da nga koy teg ci ay condition yu benn. Mm. kafal ak moom. Mm. moo tax man leen bu leen di ñëw rek di bëri. loo gis am na baax menace mhm. bu leen di ñëwee di attaquer seen jëkkër yi mhm. jëkkër da nga koy teg ci axe mhm. di waxtaan ak moom di ko wàcc di wàcc tension fexe xam ni la ñëwee mais mais gis nga tey am ñoo waxal de dëgg la bu ñu xasee ba yéeg moom waxal fii ba suba neexal la defal lu la neex duñu wàcc am na ñoo xamante da ngay xam seen point jot ay mel noonu bëri da xam seen point mais am na bi pour lan la góor gu nekk na nga koy wàccee mais tey sa jëkkër mënul mer nga gën koo yokk problème kooku bu yàggee day dof am jigéen ñu bëri ñu ngi defloo seen borom kër ci biir kër yi ñu nawtal leen ñuy dem. dañ koo liggéey dañoo yàq liggéeyam fekk seeni jabar ñoo bon. dëgg la góor dañ koy wàcce góor dañ koy nax da ngay si ak moom teg ko ci axe. maslaa rek. maslaa ba am li nga bëgg gis nga boo maslaawul. Mhm. seen célibataire yi seen appartement lañ yor. Mhm. dañuy kii nëpp sa jëkkër naa ko teg ko di ko raay mbelle soo ba ngoon nga ñàq. yéen yéen ko baa nga jabe naan dañ koo liggéey fekk kenn liggéeyu ko yaa téyewul sa borom kër. Mhm. léegi ànd bi pour la dañ koy téye ko mun naa ànd bi dafa nekk loo xamante ni sa borom kër bu wàccee doo teg ay àddunay xal muy fat ba asmaam di jukk mhm. tokk cuuraay ngay def bu ko ci néeg bi nank muy saxaar waa ji réagir nank ci néeg bi mhm. kaa mënatul am ci néeg bi boobaa parce que day xam fi mu nekk nii fan la ak ban état la toll mhm. andi bi loolooy njariñam xam ne xam ne maanaam sa jëkkër ba bëggul ay cuuraay yu saxaar yooyu waaw kon bii nga war a utiliser ci yoon boo waree sàjj nag salle de bain yeeg douche yi nga boyal góor tey yii nii teewu leen de waaw góor yi tey lii téew leen dëgg la mais gis nga ça dépend nit ñi ngay mel ci moom gis nga xale góor yi ñoo raw kat mm. ci kaw tali pour lan la parce que lii lii lii jigéen li li lii dafa am njëriñ ci jigéen loolu am parce que lii bu amulee góor ñi lii mu lañ gën a bëgg secret bi lii li muy waral wax ma ko waaw parce que Munaas Balde dangaa laal laalaak lii mooy ceeb suñu aada la bokk ndax jigéen ju nekk war nga di ko naan di ko utiliser dafa nekk loo xamante ni sa borom kër bu takkoon quatre femmes mhm. yow yaay nekk première mu neex nga nekk deuxième mu neex xam nga lu waral parce que la ngay saf la ngay neex parce que waa ji nee naa day wiiri wiir waaye say jaari ndaari lay mujj parce que dangaa saf waaw léegi saf bi nga bi nga xam dégg ca bi ay plante la am ak baax des nit tarkal la di am ay mauvaise odeur mhm. noonu lañ koy waxee parce que jànguma mais nee la li boo ko utiliser di nga set. Mhm. di nga neex waa ji bu la bokkee mën na fanaan sa kaw. déedéet moytu leen des fois sa jëkkër di la bokk nga am xet goo xamante da koy mhm. yéegal. Mhm. bu ko defee day jël téléphone sëgg ci doot la di jënteeti. lii lépp lay setal ba mu neex. waa ji fu ko neex na teg loxoom de. amatul barrage ci nit kon daal am sañu ay yoo xamante ni. léegi euh, jéeg bu ne war na koo fàggoo. léegi lii lii il faut taxaw ci def tuuti leeral. parce que li jigéen ñu bari dañuy dégg jël plante plante rek ñu mel ñu mel ni mun a sayam ñu jël di baxal di naan kenn santu leen ko du dëgg dëgg la gis nga lii say période indisposé sa période règle lañ la wax da nga koy jël nga baxal ko utiliser ko di ko naan bu foofu passé amatoo benn droit di ko naan parce que instant bi nga xam ne say cycle mi ngi période da nga lii da nga waroo ko naan parce que jigéen bu nekk dans un mois dans trois mois mun nga jël grossesse te doo ci bàyyi xel nga ni seetaanoon naa diw ne woon na nañuy naan lii pour raxas biir mm-hmm. non non non ci période bi la sa période dans les règles yi ngay gis sa période boobu ci nga war a utiliser lii wala nga utiliser ceeb parce que jigéen bu ndaw du jël ceeb dëgg la ku ëmb du jël ceeb day mm-hmm. raxas sa biir day mm-hmm. mooy war a nga naan avorté naa avorté naa parce yaa ngi jël ceeb def sa frigo di naan defe ne da nga joŋe mm-hmm. te yaa ngi yàq kon donc nit ñi il ñuy déglu doo xam période bi ñu ko war a naanee ak période buñ ko warul naanee donc loo gis rek teey loolu dama la ci dolli tuuti menace koy baxal mais lii xooj ko période bi nga gisee say règle di ko naan mu ànd ak moom. voilà soo paree raxas la ba nga set. dëgg la dafa nekk lu doy waar ci jigéen te dalay yóbbu fu sori après. léegi nii pour lan la moom. waa lii moom dafa doy waar parce que ay tegukaay cuuraay laag mhm. lii daal yee fitna ci néeg la yee fitna ah, ah, tàngal bi moom sa jëkkër bu mere moom nga koy neexalee ay paa bi di wàccee nànk di ko jox dafa doy waar yow wuyu wuyu am na solo euh, euh, Alice am na solo Ndeye lii de bëggoon naa ko laaj lii pour la mhm. waa lii attirance la am na góor ñoom dañuy dem buñ mhm. jege seen jabar te jëkkër nag tarkaal la bu jegewul jabaram li mu bëgg du ko am lii day tax sa jëkkër yi toog sa wet di la mhm. nga mën di waxtaan ak moom ci say bëgg-bëgg. Mhm. maanaam ni ay noble la. jëkkër da koy tëye nag ci sa wet. en quelque sorte fas bi pour lan la am na am so. Eh fas ba mu ngi nii. fas baa yi moo nekk nii. mais fas bi dama ciy wax sama mbokk jigéen ñi. Mhm. dama bëgg kuy sëy da nga koy jënd mais ku sëyul doo ko mën jënd. parce que day doon sa borom kër yow rek lay gis. sa kaa rek lay topp muy fas bi fas bi fas sa kaa rek lay topp ñi <laughs> ay liggéeykat lañ mais boo ko bëggee da koy sayet voilà mi ngi parce que sponsor la ci gi léegi mhm. voilà AS na solo lool am na solo lool bëgg glace tamit lii moom ku bëgg glace munaat wàcceel ma loolu wàcceel ma ko <laughs> wàcceel ma loolu. dafa doy waat bu yàq suñu émission. <laughs> am na solo. xanaa ñu jaajëfal ko ñu bàyyi la la mi ngi nii pour glace. dëgg la waaw ah, mag la quoi da nga koy maa leen jaajëfal bu baax di wax képp kuy jeet nga jéem a téye sa borom kër ndax rang bi dafa seere gaay yi takkatuñu dem nañ Nicaragua ñi jël nañ yoonu géej gi gars yi manqué na góor dafa manqué ñi dem nañ Nicaragua ñi ci géej gi waaye man micro borom laay wax nga la noonu la rek waaw mu ngi noonu kon di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu waa Kër Massar gi ma jóge mhm. di jaajëfal sama client di nuyu sama yaay sama <laughs> papa sama waa famille ak sama mag ji ma dooleel di nuyu xale bi ma àndal muy aw ak yaayam di leen jaajëfal Mm-hmm. da ngeen a gën da ngeen a riche da ngeen a meilleur ndax plateau bi du comme sant naa leen bu baax merci à toi aussi Mounass vraiment si euh, liggéey bi nañu sëy seen sëy ba mu noonu loolu rek parce que mission la boo xam ne rek peut-être yàlla mu ñun xamuñu dara mënuñu dara donc mais yàlla moo ko jaarale su ñun lu ñu gis am ak xam as tuut leen ko partagé sama yoon nekk ayca mbokk yi euh, dafa am loo xamante ne ayca ayca <laughs> lu ma lu ma lu ma intéressé la bu baax a baax euh, di wax rek. dafa dama amal bés. di sant Serigne Saliou. Mhm. le 2 décembre. première waaw. nit ku nekk da xam yow la kan. nga xam sa bopp xam kan mooy Mounass. Mhm. dama xam man la kan. Mhm. bëgg waa kër Serigne Touba yi. kennal Serigne Saliou. bi ma demee biir kër Serigne Saliou damaa jëli woon ndigal ci Serigne Cheikh Saliou. mooy sama bunt ci yoonu Serigne Touba. bi ma demee Serigne Cheikh Saliou jox man ak ndigal. moom yabal na ay yabal na ay nit ci guddi Serigne Saliou ji pour ñu ñëw ci sama cant gi. kon maa ngi leen di wax rek mbokk yi bu ko kenn tardé. samedi la la le 2 décembre. kennal Serigne Saliou yaakaar Serigne Saliou di woo képp koo mus a lebal lu baax. képp koo xam ne mus naa la defal lu baax ñëw ci sa bis soxlawuñu dara bëgguñu dara ndax Serigne Touba am na lépp. Mhm. Serigne Saliou am na lépp. mais képp koo xam ne murid nga ngay wax ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammada rasulullah ñu ngi lay woo ci guddik Serigne Saliou gi mhm. mbokk yi na ko ñëpp teewee voilà mi ngi leen xel bu baax bu baax a